ne ngalañ ci kanamu gaynde yi démb ci quart de finale coupe d'Afrique bokk na daanaka ci li mu bind moo di Sénégal wulli na Guinée équatoriale ñetti bal ci benn jàll ci demi-finale ya rëbbukat bi di Famara Cheikhou Kouyaté ak Ismaïla Sarr ñoo dugal ñetti biti Sénégal yi war a daje ci demi-finale yi nag ak Burkina Faso ginnaaw suba ci àllarba bu sept ci ngoon jotee stade yi ne feelu ko ba dañu xamal ne gaynde Sénégal yi fa ñu bëgg yegg wàcc gu yoon wi démb la ñu wulli waa Guinée équatoriale wulli yu rëy ñetti bal ci benn l'observateur nañu Aliou Cissé ki gaayam ni ñu ko jàppoo démb bu takkul coupe bi Sénégal la jëm si football nañu lu rëy teg ci diggante maturité tactique force de caractère ak équilibre journal lay fa nañu waa Zalang national di waa Guinée équatoriale yi ak ni ñu woon ci coupe d'Afrique bi gayndee Sénégal yi suqi nañu seen i laf démb journal bi teg ci tegal yu ci xët mu njëkk kàdduy entraîneur bi di Aliou Cissé kàdduy Sadio yu Cheikhou Kouyaté yu président Macky yum leen di félicité ci ndam li yu ministre Matar Ba ak kàdduy taqi gi ñu nekkee woon ci coupe d'Afrique bi bàyyi nañu ko gaynde yu pàdde la gis démb seen digg Guinée équatoriale ñëw nañu dëggal seen bopp tegal gaañu lu mitti gañe leen jàll ñu jàll ci la Sénégal fekkaat fa xibaar bi ba tey ci xëtt mu njëkk mi ngi ñuy xamal ne ay gaynde yu dalum xel la gis démb Sadio Mané ak ñoñam écarté nañu zalang yi ba dem ci demi-finale yi Burkina Faso la ca war a Vox Populi nañu Aliou Cissé ki ñoñam ak ndam lu rëy a am ci beneen taxawaay la beneenub xeex la laaj si du quotidien xamal ci xët bu njëkk ne coupe d'Afrique Cameroun 2021 Sénégal ma nga ca carré d'as ba soleil national nañu coaching bu baax moo ñu ko may journal le quotidien moom leneen la maye ci xët mu njëkk mu di ay xibaar yu jëm ci jàppante ba woon ca Gambie ci diggante soldats yi Sénégal yi FIP MFDC yi mi ngi ñuy wax ne la ca l'armée Sénégal ñàkk gëj na koo ñàkk ci jàppante diggam ak FIP MFDC yi mbir nañu ne ñooy ñi jàppale fipp yi ba tax ñu jekku soldaar yi ci yëf yi ak ñi ca jëlee gaañu-gaañu Le Quotidien mi ngi ñuy wax ñooy ñan li indi coow li mu di àllu Casamance bi ñu dagg ci lu dul yoon di jël bant yi di yóbbu réew mi Quotidien nee nañu kii di Ali Aydar newoon fii jamono ministre de l'environnement xam le na ca lu yéeme te doy waar nee na at mu nekk lu mat juróomi junniy conteneur dinañu bàyyeekoo Sénégal yàpp ay bois ba fees dell wutali réewum Chine le mandat nañu xibaar boobee démb la ko xamle moom Ali Aydar ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média xibaar beneen bu doy waar te lambooku tiis mi ngi ci Les Échos ubbi di yéenekaay bi kër gi ñu fi taaloon ca Kër Masaar ci jamonoy campagne bi ñaar ñi ci jële woon yi lakk-lakk yu mit yéenekaay bi ne nañu kenn ka mujjee na faatu mu di xale bi amoon ñetti at mu di mbir moom it journal bi jàpp na ne nar naa gën a compliquer kaawu Jeynaba Njaay bi ñu ci tudd ci contrôle judiciaire ca la nekk waaye bu mooy toll yoon di justice du yem ak moom foofu libération nañu bébé Talla Sall tolloon ci ñetti at moo far faatu maamam ji ci lakkee woon moom it am juróom benn fukki at ak juróom ma nga ba léegi nekk ci diggante dund ak dee seen savon